ok mu mel ni instant yi Sénégal tamit dafa xaw nek ci ben tis tiis euh, muy euh, dese Ousmane Tanor dien bi naka nga ko dundé waaw waaw ñu koy jaale ñu koy jaale famiyam am ko Sénégal euh, autorité la won politique donc nekkon ci gouvernement bi donc liggéeyal na Sénégal waaw ku faatu mom ñun li ñu jangal moy ñu wax ci mom lu baax rek yalla mom moy atté ken mënul atté ken mënul atté ken agresseur bi sax. amaana mun nañ ko condamner ñun sur terre fii mais munoo ko atte ndax xamoo lu ko yàlla jaarale si moom ba ba ba mu def loola kon ñu ngi koy ñaan yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla njëgal waaw yàlla na ko yàlla jégal xaare ko àjjana waaw comme ku fi jóge làqu tamit euh, ñun ñaan nañ yàlla Sénégal képp ku fi yeewoo nga dugg àjjana ak noo mënti mel euh, voilà donc ñu ngi koy ñaanal yàlla euh, xaare ko àjjana

ah ndax dina libre wala du libre lolou ci loxo justice parce que tay khalifa ci loxo justice la nek amna lo xamné période bo xamné dépassé nako période bo xamné ne voilà moom moo defoon ak deful yaakaar dépassé na période bobu amna na luñ am luñ koy tuumaal amna ñu né ab tuumaalaan waroon nañ fi tuumaal ñeneen ño xamné ñu ngi fi won nekkoon fa doon doxalee nu mu waroon doxalee ce qui est sûr moy ci loxo juge bu mu nek ci koku la destin am reposer waaw destin am ci koku la reposer koku nonu avec. la conscience tranquille moom mooy xol li nga xam ne moom moo dal xelam rek <laughs> mu def ko en tout cas ce qui est mooy lépp lu fi jugé fii rek dinañ ko jugé waat fële loolu rek moo am importance bu fekkee def ko tooñ su boobaa xalifa yàlla moo ko teg nattu tôt ou tard dina ko ko teggil waaw métit métit boo gis bànneex moo si topp waaw bu ko dina ko muñ ndax waaw mu góor la yàlla la am na ñeneen ñu fa jaar feneen nag feneen wa bu jexé mu jex mu ñëwaat nekkat ci ligéyam doomu Grand Yoff la ñu koy ñaan yalla ñaanal yalla mu genn waaw ñun ñi kees bobu non yag nañ ñu ci jàppale jàppale nañ ci ñëw nañ ci mom ba tay mu ñu dem leen ci kees bi ngeen jël fi 500000 ñu jappalé suñu musique wax dëgg yalla kon tamit bu dé juge bi bu dé bu dé def ko tek ci yoon xayrul bu dé tek ko ci yoon mom ak yalla la khalifa nako muñ yag yag dina jex bu jexé mu gën a nekkaat ci liggéeyam waaw